Angle dafa jàpp ne que refus de jeu dafa am te instant bi refus de jeu moo mais instant bi Angleterre moo dirigé le combat. bi bi ñu commencé ba léegi fu waa ñu teg tàng mu fekk fa donc mu ñu joxe avertissement pour passivité. su ma doon Angleterre damay tëj angle yi. waaw est-ce que est-ce que yow mën naa tëj angle ak géew bi nu mel. waaw parce que da nga koy mooy da ngay miime ci wet gee kar ko fii parce que fa la jëm. mais nag gis naa ne que Madji Madji moom ci tànk yi la bëgg tànk yi la bëggam te waa ji xam na loolu. waaw looloo tëj bëre bi nag buur looloo tëj bëre bi. looloo tëj bëre bi. looloo bi fi mu ne nii bu baax rek ci génnee gars yi que Angleterre dafa war a indi mappat bu pur jàppante. waaw mais jàppante bi fi mu ne nii maaji nangu ko. mais da ngay sëkkatal maaji maaji li li mu gis mooy dem ci tànk yi. gis nga fi mu ne loolu la bëgg gis nga loolu la bëgg mu sikki mu daw tànk yi. ah boobu dal na. Angleterre waaw jël na ko. jël na ko jël na ko xeex ba. ñu koy Angleterre loolu la maa ji maa ji mu doon waaw. non da koy sonal li mu esquiver dafa bari. pourquoi muy esquiver lan la. dafa daw combat bi yëpp maa ji maa ji. Angleterre jël na ko. jël na ko jël na ko xeex ba. ñu koy Angleterre loolu la maa ji maa ji mu doon waaw. non da koy.